الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على من أنزل عليه وقل بالإذن علما سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk jullit yi ñëw ak yéen comme niñ ko baaxoo woo rek di ci ànd ak yéen ci seen émission bi seen émission bi di Azikra euh, ñu koy jaaree ñu ko amalee ci site bu am solo bii nga xam ne liggéeyam rafet na lool ñu koy wax seen info di nuyu d'abord mboolem membre bi nga xam ne ñu ngi fi. mbooleem personnel boo xam ne ñu ngi ci liggéey bi rek ku ci mel ni buur ak Abdel ñu ngi rafetlu seen liggéey bu baax a baax di leen ñaan yàlla mu doon leen taw fexe tey siir yokk seen dutura saaxir moo baatina ah xam ne kullu shay'in rek ñu wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lillahi ma ata wa lahu ma axas di leen jaar suñu mbokk suñu baay imam Mouhamadou Moustapha Gueye mu ñëpp xam ndax taxawaayam war ci diine lislaam nekkoon koo xam ne daanaka mot di présenté ndax jëfam moo ko présenté imam Moustapha Gueye yaakaar naa tey képp koo xam ne yaa ngi wax ci diine def nga ko royukaay ndax liggéey mu rafet bi ñu def ci diine waaye particulièrement fii ci Sénégal mu jugee fi dem bu métte métti lool ndax fi mu yeggoon ci xam-xam fi mu yeggoon ci wilaaya comme ku mel noonu bu ko ñàkkee ñàkk nañu rëy comme ñu koy dëkk Ibrahimiya mi nga xam ne fa la ko yàlla boole woon ah ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ñu waxoon ci wàllu xam-xam te loolu kat ñu ci imam Muhammad Mustafa bi yonent bi dafa waxoon ne ida maata al-aalimu salama fi l-islaami sunnatan laa yasudduhu illa xalafa minhu yonent bi na aalim mooy bu ñu tuddee borom xam-xam boo xam ne lépp lu ñuy melalee borom xam-xam dajee na ci moom ne ku mel noonu su génnee àdduna dafay mel ni lislaam bi dafa am lu ci felli lu ci mu manqué ci nee na loolu nag ko jàng ku mooy ma yàlla dafa wutal keneen ku mel noonu loolu nag fay na ci dem suñ bàyyi bu baax yi di Moustapha Guèye waaye noonu la ñuy profité waale jaale sëñ daara imam Aliou Badara Ndaw mi fi jógee moom it ñu koy joytama koytama ma nekkoon jàmbaaru islam nekkoon tarekat nekkoon yerekat koo xam ne dundam lépp da ko jeexal ci fi sabilillahi comme boobu it ñu ngi koy jaar waa Kaolack di ko jaar ay mbokkam di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla may leen aljannatul firdaws yàlla may jëloog yonent bi alayhi salaatu wasalaam seen njaboot yal na yàlla may leen xol bu ko mën a muñee fa ilaahi hamdu wa shukru gannaaw bi ñu jaalee suñu kilifa yu baax yooyu ñu ngi ñaan yàlla defal ñu ci suñu réew mi ak mboolem réew yu lët bal fépp fu ñu nekk rek ñu koy ñaanal jàmm ci la lépp xaj su ko defee kon ñu fas yéene rek ci waxtaan tey nag ñu tànnoon benn thème indi ko ñu fas yéene fàttalikuwante ak yéen rek thème bi ñu tànnoon mooy lu aju ci jàng buñ ne jàng nag buñ ne lii ak lële jàng rek lañ wax lépp ngay jàng waaye nag danañ ci xam ne moo ci gën a am solo muy jàng xam sa mbiru diine ndax ñin umatu muhammad sallallahu alayhi xeet woo xam ne dañ ñoo tuddee ummatu iqra ummatu iqra nag li muy signifié mooy xeetu woo xam ne saa borom day naa sant pour ñu jàng ndax ñun la ne ëllëg yi ñuy seede yeneen xeet seede loolu nag pour am pour nga man koo def ni mu waree faaw nga jàng kon moo tax ñun ummatu Muhammad xaw ma waaye ñun moom dañoo war a jàng rawatina nag ki nga xam ne mooy jum bi waaye jàng dafa am li nga xam ne ñoo war ci mel ni ulumu diin mooy xam-xam boo xam ne dafa aju ci mbiru diine bu defee ci lañ bëgg a waxtaan ak yéen bi bismillahi tabaraka wa taala bu ko ci jukki ay hadis ay ahadis yoo xam ne ñëw nañ di wax ci jàng ak aayat yoo xam ne tabaraka allahu moom it wax na ci lu mel noonu ñu koy tàmbalee ci hadis boo xam ne muttafaqun alayhi la nga xam ne ñëpp ko bokk ñëpp ci bokk dëppoo mooy waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima yonent bi nee na sàkku xam-xam ku farata la ci bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen te bu ñu ne farata nag mooy loo xam ne daf la war yow jullit bi pour nga def ko xam ne soo ko deful rek amaana am na ay daan yu ci mën a fekk ëllëg diggante sa borom waaye gannaaw bi mel sàkku xam-xam farata la ana ban xam-xam lañu wax ne sàkk ko mooy farata kooku borom xam-xam yi joo nañ ci waala kuliyaalin waaye du génn xam loo xam ne moom ngay wéralee sa jàmm yàlla comme lu ko borom al aqdar yi waxee ca al aqdar yi ba mais awwalu maa yajibu ala al-mukallafi tahsilu imaanihi summa ma'rifatu maa yaslu bihi fardu aynihi mooy gannaaw ba nga matee muskalaf fexeel ba wéral sa ngëm gannaaw la nga xam li nga xam ne mooy say farataay yi mu extra ba kon farata bi nga xam ne moom la moo la war yow muskalaf bi mooy nga jéem a xam sa farataay yi mu loolu nag mënoo ko amee lu mooy ci jàng moo tax yonent bi wax loolu waxaat na benn xadis ne utlubul ilm wala bi siini nee na sàkku leen xam-xam donte si da ngeen di dem bi siini loolu ci ni nga déggee ci ne kon duur ne xam-xam lu ci téere yi kese la yonent bi di sàkku waye déedéet waaye bépp xam-xam boo xam ne mën nga cee sa man nga cee man man nga koo sàkku rek mu jural la njëriñ rek nga ko sàkku ku ne na tey développement bu am ci àdduna te loolu mu ngi amee ci buntu xam-xam kon yooyu yëpp boo ci bëggee yegg faaw nga jaar ci bi te buntu bi rek la muy xam-xam moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa waxaat ci beneen xadis ne man yuridullahu bihi xayran yufaqihu fi diin mooy képp koo xam ne yàlla bëggal na la jiw bëgg na ci yow jàmm force nga lay dégloo sa kon loo ciy déggee mooy ne yàlla ku naat ci yow safaan ba rek moom lay xëy du respecté du xam lan mooy olomu diine waaye ku yàlla bëgg ci yow noo def rek da nga xam lan mooy olomu diine da nga lan moo la war ci sa diggante sa borom diggante kon loolu mbokk yi lu mat a bàyyi xel ay ay ahadisa boobu yoo xam ne yëpp mu ngi wax ci li nga xam ne mooy jub pour sàkku ji xam-xam rek waaye nga jiital te la nga xam ne mooy xam-xamu dina ndax xam-xamu dina mooy xam-xam bi nga xam ne moo lay orienté ba nga mën a jubóog sa borom moo lay orienté ba li sa borom sant nga mën koo def rawatina nag mooy dëggal ak aw bu dee li nga doon mooy te ci xorom bu dee boo xam ne dama dox diggante sa borom moo tax Ibnu Qayyim dafay wax ci téere boobu ñuy wax tariqul hijratayni nee na inna al insana la yumkinu an yuhaqqiqa al ubudiyya an yuhaqqiqa al ubudiyya ala ala wajhi alladi yuriihu llahu illa bi quwwati al ilmiyyati wal quwwati al amaliyya Ibnu Qayyim dafa wax ne doomu aadama bi mënut dëggal dëgg dëgg ak ubudiyya maanaam nekk bi nga nekk jaam ci kanam sa borom loolu mënoo koo dëggal ci anam bi nga xam ne moom na ko yàlla dañ koo jaaree ci am xam-xam am ci nag base bu dëgër waaye it man koo jëfee te teg ci yoon bu mu misaal ko ci ne tey jii ni boo bëggoon dem tukki yow Abdel par exemple jugee fii dem beneen réew xam nga doo dem il faut nga ay ay ay renseignement yu leer naññ buñ la waxalee ba pare nga saa saa ko su toog ak xool sa santé ndax mën na ko wala matu ko su ko defee yooyu yëpp bu dajee ci yow ci ngay soog a mën a jub pour tukki kon tamit yow mi nga xam ne jaamu yàlla nga te yàlla sant na nga jaamu loolu pour nga mën ko matal il faut nga jàng xam sa diine eh, soog a jox yàlla ko war a jox sinon rek kon dangay yàgg def ay erreur kon loolu mbokk yi lu mos a bàyyi xel la waaye ci ay ci téeréem bu tedd ba di ci ñaax nit ñi nañ ñu sàmm ci xam tax ne falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taa'ifatun liyatafaqqahu fi diin wa liyunziru qawmahum izaa raja'uu ilayhim la'allahum yahzaruun yàlla mu ngi wax ne lu tax pourquoi yéen famille bu nekk am ñenn ñoo xam ne jug nañ dem sàkku ji xam-xam lu téye lenn ci famille bi jug dem sàkku ji xam-xam waaw nga xam ne bu ñëwee. seen xam-xam boobu danañ ci mën a jëriñ seen bopp waaye jëriñaale ci seen mbokk yi nga xam ne ñoom la leen ndax ñoom it loolu dana leen mën a soññ buñ jug def effort pour mën a gëstu ji xam-xam loolu yàlla mu ngi koy ñaaxee ci téeréel bu tedd boobu ba tey waxaat na ci benn aaya narfa'u darajaati man nashaa ah ñun yàlla ñoo yëkkati darajaay ku ñu neex waaye nag borom xam-xam yi ne yàlla bu bëggee yëkkati sa daraja mun na koy jaarale ci nga nangoo jàng ndax soo jàngee rek tegu ci yoon jëfee li nga jàng rek yàlla yëkkati sa dara waaye yëkkati dara ja du ko du ko du ko du ko jékki-jékki rek defal la ko nit ci dara non non waaye faaw nga nangoo góorgóorlu jàng soo jàngee nag yàlla mu ne ñu yëkkati sa dara kon loolu aaya la boo xam ne mu ngi ñaax rawatina nag ñun jullit ñi ngir ñu jub sàkku ji xam-xam waaye jiital li nga xam ne mooy xam-xam ba xam-xam mooy lépp mu xam-xam mooy bunt bi nga xam ne ci nga mën a jaare ba rek nga say mbir yëpp rewa kon ñu wax tamit ci li nga xam ne mooy ngëneel bi nga xam ne ngëneel yi xam-xam la gannaaw bi nga xamante ni yonent bi jox nañu ay addis yoo xam ne ne da nga war a jóg waaye nit ki nag mu gën a sawar ci li muy def faaw lii ban valeur ban valeur la am ci la koy gën a jox gëdd ci la ciy gën a sawar moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy waxee ni jug leen sàkk ci xam-xam dafa ñu ñëw nañu ah ndax lu tax ma leen koy sant ndax xam-xam kan boo ko amee lii ak laa wax ñu ci ay hadis yàlla suñu borom tamit wax ñu ci ay aaya ngëne li nga xam ne moo nekk ci xam-xam boobu ñu digal pour ñu sàkk ñi njëkk ci jukkee aaya bi nga xam ne saa borom tudd na ko boobu ndax yàlla suñu borom bi nga xam ne mu ngi seede ne moom rek mooy yàlla amul keneen moom boppam la jiital bi mu seedee boppam ci loolu teg ci malaayka yi ñetteele nga xam ne mooy borom xam-xam kon foofu loo fay déggee mooy ne pour yàlla nangu ne yow mi kat jaamam nga nangu nga ko lim doon à cent pour cent kon faaw da ngay nangoo jàng boo jàngee ci ngay soog a xamee yàlla lim yeewu ko su ko defee moom mu confirmé la ah yow mi naa la nag ab jàmm moo tax yàlla wax ci alquran ne shahida allahu annahu laa ilaha illa huwa wal malaikatu ak ñan ñoo óolu naan yàlla nee na seede na moom dong yàlla waaye malaayika mi nga xam te duñ ko mooy benn yoon waaye ya'suuna fii maa amaru wa yaf'aluuna maa yu'maruun ñoom it seede nañ ne yàlla rek yàlla yàlla ñu ne ak mu ne ah óolu boobu waxee loolu nag dafa taxaw tegu ci beneen baat waaw kon boo bëgg a bokk ci ñi nga xam ne seedeel nañ yàlla yàlla am rek na nga jàng soo jàngee rek xam sa diine su ko nga xam fooy teg sa tànk yàlla mu wala la confirmé na la yow ñi kat xam ne seedeel nañ ko yàlla mi waaye boo xoolee bi muy wax ci li nga xam ne mooy ragal yàlla ne yàlla ñi ko ragal ñeent ak la innama yaxsha Allah min ibadihi al-ulama yàlla nee na borom xam-xam yi rek ñooy ñu ko ragal nga gis ne foofu ci balaa xam dafa indi innama te innama ku na xam ne dafa bokk ci adaatul xasr bi mooy jumtukaay yi nga xam ne dañuy gaw mbir mi ba du génn juge boobu mooy ne borom xam-xam yi képp ñoom ñoo ragal yàlla te loolu mooy dëgg ndax mbir mi pour nga mën ko jox cër bi dëgg dafay fekk nga xam ko pour nga mën ko jox gëddam dëgg dara seet nga xam ko waaw moo tax ki nga xam ne jàng na ba xam kooku moom moo mën a xam lan mooy ragal yàlla waaye kooku it moo mën a ragal yàlla te loolu na exemple de tey fi mu toll nii réew yi ñuy dund am na ay luwaa yu tëral luwaa yooyu noonu tey ku la ko xam ku la ko gën a xam rek moo la ko gën a ragal yow mi ko xamul nag yow moom da ngay tëñax tëñax rek ba kera ngay daal ci musiba ñu ne li ah, nga xaw moom fekk xaw moom bi la ci génne tardé fa tardé mooy nga ko ñàkkee jàng kon ci jàng ci ngay mën a xam ne fi ngay teg sa tànk ci jàng si lay mbir mi di leeree moo tax ne ñi ko ragal daal mooy ñi nga xam ne mooy borom xam-xam yi dégg nga waaye gis nga mbokk yi yàlla suñu borom ci alquran lenn rek la wax ci yonent bi ne ko dal waxal waxal waxal dalli ma loolu mooy alquran mooy te moo ne taarak fi dara jàpp alalam fi waaye gis nga suñu borom dana ko waxal ne qul rabbi zidni ilma dolli ma xam-xam waaw kon foofu loolu lu muy tekk rek mooy ne yàlla bu amoon leneen lu gën a foor xam-xam loolu la koy wax ni ko dolli ma ko waaye nag amu ko xam-xam te xam-xam comme ni ñu ko waxee sax mooy buntu lépp waaw yàlla ci fasaxam xam na ne xam-xam mooy buntu moo tax mu ne nga waxal na jox ma xam-xam rek waaw ndax su la joxee xam-xam rek nga xam ne yow di nga xam koy def seetaan lépp loo lépp loo jubloo rek day day day dañ ne lépp loo xam ne da nga koy jublu wala nga ciy nekk te demee woo ci ak xam-xam yàgg-yàgg day freiné day yàqu waaye lépp loo xam ne yaa ngi ciy dugg demee ci ak xam-xam rek kooku mbir moom ci kanam la jëm donte début bi mën na métti waaye yàgg-yàgg ci kanam la waaye gis nga it bi mu ne ko xoolal bi zidnaa ilman loolu lu muy tekki mooy nga xam-xam lu doy waaw moo tax benn bindkat dafay wax mu ne keroog bis boo demee ba jàpp ne yow mi kat doyal nga xam-xam nee na keroog nga nekk ku gën a réer yow keroog nga keroog nga nekk ku gën a réer ndax yonent bi moo ne woon minal mahdi ilal naar jàng fi nga juddoo fi ngay dugaate ci bàmmeelam kon xam-xam lu doy su doon doy yonent bi yàlla dina ko dolli ma ko yàlla jox yëpp kon du ko dolli waaye loolu ci loolu ci déggee mooy ñun doon daara yi wala yéen ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi de ci benn parti bi buñ buñ ba nga nekk ci daara ji am fa at jénn nga rek pare a commencé jàng xoolal tey ki jaar ci école bi élémentaire dem ci CM dem ci génn nag soog a dem ci jaamee ci dem université ñu ne ko yow nag yaa ngi soog a commencé jaamee ah kon nga xam ne kon fi nga jaaroon noonu dara loolu lantaay la woon rek lantaay la mën nañu wax échauffement loolu waaye max baa ngi soog a commencé kon loolu aay bi wane na ko ndax yonent bi ba yàlla di wax loolu moo fekk na na ne xam-xam luy doy la kon ñu leen doy ci moom waaye xam-xam moo tax yàlla ne ko waxal ko rabbi zidni ilma waaye yàlla waxaat na ci beneen aaya luy wane ngëneelu xam-xam rek mooy suñu maam aadama bi ko yàlla bëggee teral xam-xam ci la ko jaarale ndax bi muy discuter malaaka yi neen dama am dama bëgg a bind benn xalifa ci kaw suuf wala ay xalifa ñu ne ko déer dogal bi def naa dama naan boo yàlla mu ci dogal la muy dogal ba bind ko daf ko jox xam-xam dañ ko joxee xam-xam ñëw na taxaw ci kanam malaayka yi mais yéen a doon critiqué léegi nag maa ngi leen laaj bagage yi ñu yëg laa yëg laa la wax kenn xam ñu ne ko laa ilma lana illaa maa allamtanaa ñu xam de yàlla ne Adama anbiqu waaw xamal leen Adama xamal leen mais même xamal leen nag am ngeen seen kaw ñoom ñëpp ñu gis jóotal ko kon foofu it mën nga faa déggee nit ki léegoo léeg mën nga nekk ay nit. luñ la teg fenn waaye góorgóorlu rek ba am xam-xam soo amee xam-xam rek boo leen nawloo boo leen xeebu ñoom kenn dootu la ci fenn dina aadama bi mu leen jàngalee waxal la li mu leen waxal ak malaayka yi nañ doy ñu root si biir dëkk loolu xam xam-xam rek moo ko mën a nekk kon mbokk yi loolu rek bu doon loolu rek laa war naa tax ñu ñëw ko suñu xam-xam ndax malaayka nam doy ñëw root dina si biir dëkk yow jàmm kon loolu rek war naa tax ñu gën a góorgóorlu waaye yàlla saa borom wax na ci beneen aaya ne yarfa Allahu ladina amanu minkum wa ladina utul ilma darajaat waaw yàlla nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen mooy danaa leen ñi nga xam ne ñoom laa jox xam-xam ñoom laay gën a yëgati seen daraja que ñi nga xam ne amul xam-xam te loolu neex naa dégg ndax suñ mag ñu baax ñi tey. xoolal ñu fi nekkutoon seen i naaw lañ fa nekkutoon déggoo ci kenn te ñoom foo toll yaa ngi di dégg loolu leen ko jox xam-xam waaw foofu ñi naan ci fa benn xisa boo xam ne boo demee ci Tabsirul Anam te analay ma wóor imam ak yeneen téere yu bëri indi nañ ko waaye ñu cité ci boobu rek Mawlana Cheikh Baye ah dafay nekk li ne ca Xurasaan am na benn chérif bu fa nekkoon boo xam ne boo xoolee. askanam dafa jokk ci Seydina Ali karamallahu wajha waaye nee nañ mu sàggan lool doy waar lool zahire lool ah fekk foofu it am na benn mbaa yàlla bu fa nekkoon mooy ku ñu wax jaam bu ñu tuddee jaam boo ne yàlla may na ko mu góorgóorlu lool ci diine ba yàlla jox ko xam-xam yàlla jox ko xam-xam lool waaw yàlla dogal nit ñi bëgg ko lool nag ndax ñu mel ba fu mu jublu rek ñu daal ko danañ bés mu génn jugee këram di dem ci jàkka jàkk shérif bi dab ko fexe ba jàpp ci mbubb rek ne ko yaa aswad al xawa xawafir yaa kaafir ubnu kaafir ana shérif udal wa tujal uzam wa tukram wa uhaan wa tuhaan ne ko yow yow yéeféer nii di doomu yéeféer yow mi nga xam ne dangaa ñuul te ñuul nag du sikk du sikk kuñ koy kuñ koy kuñ koy ñaawale xamal ne ñaawul euh, dañ laa takk dañ laa takk ndax Sëñ Tuubaa wax na ko ci euh, benn téeram Masaalikul Jinaan ñu fa lay yu yu jëm sawaadul jismi saraahatun fataawa suul fa dégg nga loolu nekk loolu taxul sa xol sa xel na taxul nga suufee loolu ci dara bi mu ne ko yow ku ñuul ki doomu yéeféer man mii di Chérif doon sëtu Seydina Aliou te fu ma jaar ñu teddandil ma yow foo jaar ñu teddal ma fu ma ja ñu doyadal ma yow foo jaar ñu ñu ñu ñu ñu toppatoo lu tax loolu ko ah leen rek la mu ne ko mooy man yéewér laa la waaye damaa góorgóorlu ba leeral sama xol yow nag nga caaxaan ba sa xol la sama xol boobu leer leeraay boobu mooy mooy manifesté wu ci sama kanam ci sama visage moo tax nag nit ñi jàppee ma man mii kat man maay ko yokku ci man maay ko bokk ci askanu Seydina bi yow ñu jàppee la yow yaay ko bokk ci askanu yéeféer boobu ngay tudd loolu moo tax nag ñu jëflante ak man ñu jëflante ak man yow ñu jëflante ak yow nuñ nuñ waroon a jëflante sama bay waaw waaw kon lu yàlla woon feeñ na gis nga xam-xam nu muy fekk koo xam ne kenn xamu ko woon yéeféer la woon mu góorgóorlu gannaaw bu mu tuubee di góorgóorlu ci xam-xam ba yàlla may ko ci cër def ko xamul na fa mu aw nit ñi daal nga fekk koo xam ne mu góorgóorlu woon ndax askanu mbokk kon kenn du ko mën a téye waaye mu caaxaan ba yàlla wàcc moo tax Seydina Omar radiyallaahu anhu dafa mos a daje ku ñu tuddee Abdul Haris al Xusaani ca Osfane ne ko waaye koo bàyyi ja mu ne ko maa ngi ko bàyyi ko ñu tuddee Ibn Absa foofu laa ko bàyyi mu ne ko ah ab jaam ngay bàyyi ca daara bi kitaabillah wa aalimun bil faraa'id mu ne ko la te ko waaw Seydina woon ne ko wallaahi yéen a ngi tudd dëgg la yéen a ngi tudd wax na dëgg waxoon inna allaha yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin yàlla de yonent bi nee na yàlla ci téere bi ci lay fale ay nit waaye nag mooy ñi nga xam ne ñoo ci nekkoon di nag ak di góorgóorlu waaye nag ñi nga xam ne ñoo woon caaxaan ci leen di kon loolu dëggal na yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ulul darajaat waaw waaye ku ci mel ne suñu maam yu baax nga Salman al Faris nga xam ne mooy jógoo ca Perse gis nga ko ñëw di góorgóorlu téye diinaam ba yonent bi ilxaq bi nasala yonent bi yéegal ko ci bokka boppam ñu tuddee adap adaptation waaye mu ngi Abdul Ahad mi nga xam ne moom moo yonent bi ñoo bokk benn famille waaw gis nga ñàkk gi ñàkk téye diinaam ñàkk gi ñàkk jox xam-xam gëdd ci la ko yàlla supprimé ci askanu yonent bi donte bokk na ci bidaaya waaye bokk ci bid'a moo tax muy gën doon wax ne la umruka mal insaanu illa bi diinihi wala tatruku mawla irtikaalan ala nasabi waqad rafa'a al-islaamu Salmaan al-Faarisi waqad wada'a ash-shirku Sharifa Abaa Lahab mu ne lu ma la taw maa lay conseil nga téye sa diina bu baax waaw bul bàyyi sa diina benn yoon ndax di sukkandiku ci ay affaire askan fii laa bokk ak fële laa bokk déedéet nee na xoolal Salmaanul Faarisi kenn am ko waaye góorgóorlu ci diina moo tax léegi fu ñu tuddee yonent bi tudd waaye xoolal Abu Lahab sàggan gi mu sàggan ci diine moo tax tey kenn du ko tudd mukk wala boo ko tuddee lu moo tax nga cay teg te ban nga daa Abi Lahab gis nga kon loolu lu ko xaj ne ñàkk gi ñàkk a téye diine te loolu yëpp ñàkk a jàng rek moo xoolee mooy cause bi kon nga déggee ci ne kon boo bëggee jiitu ci lislaam boo bëggee jiitu ci diin faaw nañu ñaan moo tax waa ji nee na ina talaba taqaddum fi diin bil mashiqati bi mujarradi intisaab xalilatun laa yaqbulaha ulul albab bëgg bëgg ne lépp loo xam ne lu aju ci mbiru diine la yaa koy jiite te yow nga bëgg koo teg ci askan rek ci affaire xeet nee na loolu normalut te mu ne ñu am fulla ñu am fayda sax duñ ko nangu ñu am fayda sax duñ ko nangu waaye gis nga liñ la wax léegi ci yarfan Allahu llaziina aamanu minkum wallaziina uutul ilma loolu neex naa exemple sax ci àdduna bi ñu dund boo demee tey ci entreprise yi dañ ko gis xale bu ndaw koo xam ne tey ñam seefe mën nañ ko ay bàyyi mais loolu yëpp lu xam rek xam-xamam xam-xam moo ko jox mooy ëpp solo te moom mooy gën a noble ña ca des moom fooy fekk rek ña ngay sonn di kër ci kër kon loolu ñoo koy tax xam-xam ba tey ñi nekk ci mbedd mi ñii di wër fii ñii toog ci gàllankoor pare ñàkk xam-xam ba bu ñu demoon jàngi xam-xam au moins xam-xam boobu noonu daa leen jëriñ mën ci amee métier et cetera da nga demee ba mu jeex comme xam-xam sëñ bi mooy lépp rek ci gàttal bu ñu bëggee léegi wax bi daal mooy nañ xam-xam daal mooy miftaahu kulli shay mooy caabi lépp lépp mbir waaye ci nga ne la xam-xam lañ doon wax ba léegi. dafa doy ngeen rek ak malaayka yi buñ bëri yonent bi ne malaayka yi borom xam-xam buy dox dañuy laal seen mbagg teg ko ci suuf ngir teralee ko borom xam-xam bi waaw xoolal tey président buy romb ñu laal ko tapé bi pour teraangalee ko waaw xoolal malaayka yi ñoom lañ def malaayka yi ñu ngi buñ taxawoon rek dafa lay mais ñi ñëw tëdd laal la seen mbagg ma ndax xam-xam bi nga xam ne moom la kon loolu rek dafa doy ci ngeen mbokk yi waaye yonent bi wax na ci benn hadis ne euh, borom xam-xam yi seen deret ëllëg yawmal xiyaam danañ koy tollale ak deret yi nga xam ne dañoo martir ci lislaam mooy dañoo dee dañoo dee ci xare wala dañoo shahid ci xare yéen ak ñun seen garab mu foore mu ne ëllëg ñun seen deret dañ ko peese ak deretu borom xam-xam yi te deretu borom xam-xam yi sax mu am na feneen fu mu waxee ne ñi nga xam ne dañoo sëy ci lislaam dara ñuy def ngay ñee sax ñi nga xam ne dañoo doon borom xam-xam ba doon ngéeju sax yàlla def leen borom xam-xam kon mbokk yi loolu benn waaye bés yi gën a xool yàlla dafa wax maam Ibrahima alayhi salaatu wasalaam ne ko inni alimu uhibbu bi alimin man alim laa mooy borom moo tax mu bëgg ko xam kon boo bëggee yàlla bëgg la rek da ngay nangoo góorgóorlu jàng waaye nag nga jiital ci li nga xam ne mooy sa xam-xam diine waaye yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ci hadis boo xam ne siiw na lool mooy al ulama warasatul anbiya nee na borom xam-xam yi doon yonent yi waaye nag mu ne yonent yi nag duñ leen doon ci alal duñ doon ci diinaar waaye ñu ne ñu leen doon ci xam-xam kon mbokk yi dafa ku ne bëgg ngaa nekk ndono bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ndono loolu ci benn bu rek nga ko mën a amee mooy buntu xam-xam kon mbokk yi loolu benn benn ah, fexe ba bokk ci ndox ñi doon loolu ngëneel bu ñu ko xool kon nañ góorgóorlu ci xam-xam waaye nag li ñuy wax yëpp ci xam-xam yëpp ngëneel yëpp mu nekk xam-xam boo xamante ni bu lay jural njëriñ la da nga jàng ko nag di ko jëfee waaye bu ñu ne kii borom xam-xam rek jëfewul xam-xam la kooku lépp lu ci wax ni rek kooku bokk ci xam-xam dafay laaj jëfee waaye innamal ilmu bil amal xam-xam dañ koy jëfee waaye ne dañ koy taxul ñu naan xam-xam mbokk yi waaye dinaa loolu di nit ki bu amee xam-xam waxuma la ngeen di waaye amal amal na ko intérêt moom ci boppam amal na ko intérêt personnel wala am na intérêt boo xam ne tey dina ko jëriñ ak jëriñaale ko mboolem ñu nekkal mooy société bu ñu dundee moo tax imaam Shaafi daan na wax ne fa law laa ilmu ma xaraam wala xalaal bul wan a xam-xam konoon ñi fi texe yëpp duñ texe wala ñi fi réussir yëpp duñ réussir te loolu comme ni ma tuddal sànq si mag ñu baax ñi nga xam ne tey foo leen tudd ñu ne escape lu leen ko may rek mooy xam te mu ne seeni baay jël naa seeni maam sax waaye moom seeni baay sax xamoo leen tey kuñ la ci waxal baay mu ne ah te dañ koy fàtte kon ñoom loolu la ko may mën xam moo tax mu ne fa loolu laay maa saa ñu la du jaar wala mu ne xaraam wala la xalaal waaye bu doon xam-xam doo ràññee leer dem bu doon xam-xam doo ràññee lu baax lu bon waaw kon yow mi nekk ci société société bi sax di dund boo bëggee bokk faaw nga ràññee am loo xam faaw nga xam xam luy luy dox ci dëkk bi te loolu yëpp xam-xam moo nekk loo xam ne jëriñ ki may ko réussir àdduna ak àllaaxira bokk na ci njëriñ yooyu mooy nit ki fekkee dafay jëf dara ci kaw xam-xam jëf jooju dana ko jëriñ ndax yàlla dina ko nangu waaye looy jëf lu mu bëri bëri te àndut ak xam-xam rek sa jëf jooju day di nekk loo xamante ni lu neen la ndax inna xalilal amali maa al ilmi billah yanfa وأن كثير العمل بدون علم لا ينفع kon loolu moo tax bàyyi xel waaye boo bëggee am teraanga jàppal ci xam-xam moo tax Ibnu Mubarak daf doon wax ne man maa ngi yéewu ci koo xam ne sàkkuwul xam-xam ba pare bakkanam di ko woo naan yow di nga am réussite di nga am texe di nga am teraanga mu ne man maa ngi yéewu ci عجبت لمن لم يطلب العلم كيف يدعون كيف تضع نفسه إلى المكروه koo xam ne yow amoo xam-xam sa bakkan di la réewiloon naan la di nga am lii ak laa ah ne ko xam nga ne sa bakkan da lay nax rek waaye loolu dëkk ndax li la war a mën a may tax li la war a mën a may réussir loolu lan rek am mooy xam-xam te comme que amoo ko nag doo am dara ba tey dafa waxaat ci beneen wax bu am solo nee na lañ la siy amal sama yaay moom la ñu baale nee na gisuma lu gën a tedd xam-xam mu ne loolu tax mu ne ndax boo xoolee àdduna bi tey yi ko yëg mooy buuri buur yooyu noonu ñooy dogal ci kaw nit ñi ñooy dogal ci seen bopp waaye buur yooyu noonu tey ñu leen yilif mooy borom xam-xam borom xam-xam yi ñooy leen dogal ci seen kaw ñooy àtte ci seen kaw kon loolu Sénégal yoo xam ne loolu la ko yàq mooy xam-xam ci xam-xam ne ko jaare ba am waaye ba tey loolu mën nañoo wax ne intérêt personnel la maanaam njëriñ la loo xam ne ci sa bopp la yem waaye am na yeneen njëriñ yoo xam ne daf lay dafay yóbbaale société bi nga nekk sax moom it mu amaale ko ci ndax euh, ku ñu wax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ci benn xadis ne euh, sinfaani min ummati isa salawu salaha naasu wa isa fasalu fasada naasu nee na ñaari xeetam gi ci sama ñaari xeetam gi ci sama xeet wala ñaari nitam gi ci sama xeet ñoo xam ne bu ñu baaxee rek ñëpp baax waaye bu ñu bonee ñëpp baax mooy al umara wala fuqaha mooy ñi nga xam ne mooy buur yi ñi nga xam ne ñoo yilif ak yi nga xam ne mooy borom xam-xam kon tey àdduna bi jag wala nit ki réew mi nga nekk pour mu jag pour mu baax dafay dépendre ci kilifa yi la jiite dafay dépendre tamit ci nitu diine gi ndax ñoom ñaar ñu ñoo mën a defar société bi mu defar ndax tey ñi nga xam ne mooy umaraaw yi mooy buur wax fi ñuy jaar su ko defee ñoom it ndax nit ñi mën a am jàmm waaye borom xam-xam yooyu it nag loolu pour ñu mën ko def faaw ñu jàng waaye buñ jàngee ba pare ñu jub te jubal loolu mooy mën a defar société kon ñaar yooyu moom la yonent bi wax ne ñooñu suñu jubee rek lépp jub waaye suñu dëngee rek lépp day daal di dëng te xam-xam boobu ñu wax bokk na si njëriñ yi nga mën a jural mooy dana la jéemee ci réer wanda diine ji la te réer nag musiba la réer musiba la moo tax ku ñu wax Saxru Shadid al-Kuwaiti nekkoon njàmbaar lool daan ñaax xeetam ci góorgóorlu ci jàng muy dëkkoon kawe daan wax al-jahlu daa'u shabi indi dawaa'uhaa wal ilmu fii rahli ajallu dawaa'ihaa nee na réer daal mooy feebar bi feebar bi nga xam ne moo jàpp pauvre bi yëpp waaye nag man maa ngi saafara bi nga xam ne mën na ko fekk ñu ne ko lan la mu ne xam-xam rek waaw ah, xam-xam mooy saafara feebar boobu mu wax ci ne waaye mu an jëw waaye shaabihi watanun ak gaarami jaaji yow ji wa ilaa mu ne xam-xam daal moo nekk loo xam ne moo gën a mën a saafara réer boo xam ne ak réer xaw na koo alak kon sa réew boo ko bëggee tabax tabax bu jaar yoon man na nga jàngaloo say ndaw d'abord gannaaw nga jàngee yow it wala su fekkee jàngoo dawaatal ko ci say ndaw ndax suñ jàngee rek danañ xam ni ñuy organisé wu te soo organisé wu lépp kon boo bëggee organisé wu loolu da nga koy teg ci xam-xam soo ko tegee ci xam-xam rek lépp dox ni mu war a kon. mbokk yi liñ fi wax nii yëpp lenn la ñu bëgg mooy ne xam-xam daal moom nag mooy solution bi trouvé la waaye nag xam-xam boobu fexeel nga jiital ci sa xam-xam diine yow jullit bi ndax yàlla mi la bind dafa am lu la sant mooy pour nga jàng te jàng boobu nag mënoo koo teg ci xëba am mënoo ñëw ne dama koy jaamu te xamoo yor yor moo war a jaamu jaamu waaye faaw nga jaam bi xam noo war a jaamoo sa bopp jaami nag mbokk yi du wees bu ne man laa man maa jaam déedéet wax naa la ko benn nee naa la suñu mag ñi daan nañu wax naan jàngi dee dina wees waaye jàng moom du wees jàngi dina wees waaye jàng moom du wees rawatina nag ci jamono bi ñu toll nga xam ne yàlla jàppal la ne ay moyens yoo xam ne mën nañ cee jaar ba xam li ñu bëgg a xam à travers réseaux sociaux yi loo bëgg a xam da nga ko see xamee tamit waaw da nga ko see xamee ndax ustaas bi ay ñu fu nekk waaw ñii ngi organisé wu ñii ngi def ah demee demee programme bi am solo kon loolu mën nga see jaaree ba xam sa biir wala sax nga organisé xool sa temps rek nga bëgg nga ustaas même sa doom bëgg na ñëw jàngal même bu dee sa kër sax baax na waaye fexeel ba jàngal xam li la war ci sa diine d'abord ndax kat diine du caaxaan diine du caaxaan diine dañ ko war a jàng xam dañ ko war a jàng xam ko ndax ndax nekk ci mbir dañuy wax ne nekk ci mbir te xamoo ko ñàkk cee nekk te xam ko sax moo gën puisque boo ci nekkee te xamoo ko ñàkk a nekk bu ñàkk xam boobu mën na mën naa dem a dem ba jéem la ci waaye ki ci nekkul ta xam ko xam li mu ko xam mën na dem ba dugal ci waaw dañuy nettali benn histoire mais dafa am benn borom xam-xam boo xam ne dafa dajeeg benn làbbe ni mu ma tuddee boo xam ne moom ci ay riyaadu nafsi di doon dox maanaam tàggat bakkanam tàggat bakkanam lépp loo xam ne bakkan bi daf koo bëgg mu kañ ko lépp loo xam ne bëggul ko mu forcé ko ci loolu la nekkoon dem ba di dox ci kaw ndox nit ñi di ko gis nii mësul ba muy jaar ci ndox mi ndox di dem ndox di dikk bala nga moom bi dajeeg moom waxtaan moom laaj ko ne ko yow lii noo xam ne mu nga ah, nee na rek tàgga sama bakkan ci lépp lu mu xam ne bëgg na ko ma ko lépp lu mu bëgg ma forcé borom xam-xam ne ko ah mu ne mu ne ko ah moo ne doo ko jéem a forcé dina la xam posé ko ba xam posé ko bien ba xam nan lay réagir waa ji ne ko aban ñu dem ay fan waa ne ko ah mais ni koy waxal bakkanam noo defal diine bakkan bi siisu mu posé waat ko bakkan bi siisu mu posé waat ko bakkan bi siisu mu xam ne nag aha ndagee kat diine ji mooy loo xam ne mooy li koy jëriñ di ji mooy lu am njëriñ ci noonu la def ba tuub nga dem ci waaye ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna kon mooy li ñuy wax mbir mi boo ci nekkee da nga ko war a xam boo ci nekkee da nga ko war a xam ndax soo ko xamul rek nit ku saay saay sax mën nañu def ay pexe ba jéem ci surtout si jamono bi ñu toll nga xam ne bëri na ñoo xam ne tey loolu rek mooy seen liggéey loolu rek mooy seen liggéey dañuy fexe ba détourné la ci li nga nekk dugal la ñoom ci kenn xamul fu mu la jëmee boo ko toppee rek da ngay sànq kon ñu góorgóorlu ci diina mbokk yi diina mooy lépp moom ñu baax ni Mawlana Cheikh Abdou Salam na ko wax nee na jàpp leen ci diina ku jàpp ci diina yàlla jàpp la foo mën a nekk man ba nekk di dina diina soo ko defee rek yàlla yàlla téel boobu nee na diina amul kër amul sant amul askan waaw fu ñu ko téye boo déggee te ñaan këru diine yi len diine yi lenn rek ña fa nekkoon ñoo téye woon diine ñoo téye woon diine nañ ko war a téye ñu dem ba naan këru diine waaye dëkk fa rek fañ ko fa téye di ko fa dundalee ba loolu fekk nañ ko tey kon yow royal suñu moom yu baax ñoo ñu nekkoon ci loolu boo demee kon ñu tëjee rek waxu Ibnu Mubaarak ñu waxoon rek ne ala unaasan bi at na diine xat xoninu wala araahum marru fil ayshi bi duuni fastahni bi fastahni bi bi diin am lu ngeen luuri kamas tax nañ ñu ko bi dunya ay diin Ablaye moom wala daf ne des fois damay gis ay nit ñoo xam ne ñoom daal seen diine moom soxlawul ci lu ma ñu teer a teer jàpp ne loolu rek mooy diine waaw suñ ci amee tuuti rek doyloo ko waaye bu dee seen mbiru àdduna moom duñ ci mos a doyal ni muy gën di bëree rek ñu gën di bë ñu koy gën di bëggee noonu rek ah bu dee nii ah moom bàyyi comme que xam na lu jullee rek baax na non c'est pas ça affaire bi du noonu dina dañ ko war a jàng xam ko maîtriser ko mu ne kon nag na nga doyloo sa diine téye ko bu baax comme ni nga xam ne buuru àdduna yi noonu lañ doyloo seen àdduna ba wéccewuñ ko ak dara kon yow jullit bi ne la sa diine jar loolu nga sonn ci bu baax maîtriser ko su ko defee su boobaa nga si mën a jëriñoo ñu ci war a jëriñoo waaye soo ko respecté wu rek kon lii ci li nga ci bëggoon a def doo mën a def kon mbokk yi ñu gën a góorgóorlu ci diine téewaate bu baax ko defee kon ñu yemale foofu kàddu gi si jub ci yàlla la lu ci dëgg seen mbokk mi mu xew mi moom ci la jógee alalahi uridu ilislam asita wa tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh dama 44 minutes. ah waaw ah dama 44 minutes.